ñi ngeeg euh, Ousmane Tounkara tey jii yàlla def na loo xam ne sénégalais yu bëri bëggoon nañ ko moo di mu génn fa mu nekkoon fekki njabootam Ousmane est-ce que lu ñu mel am na. waaw macha allah Pape vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax ginaaw bu ñu sant euh, yàlla ñu sant suñu ay waajur. Euh, vraiment di remercier aussi sénégalais yëpp. waaw tey moom vraiment nouvelle bi ñu doon xaar am na ñibbisi naa si jàmm ak salaam maa ngi ci kër gi. waaw tey jii kon dafa mel ni décision juge bi gars yi teguñu ci leneen dañ ko della libéré directement. waaw euh, parce que xam nga defe naa boobu fekkee nga ko sax euh, mooy bi ñu waroon euh, juge bi bi mu jëlee décision bi dafa waroon génne bind bi nee na ci ñaari semaine donc ñaari semaine yooyu moom mat suba la lay mat sax ñaari semaine d'ailleurs donc dafa génnee décision bi rek vraiment macha allah ñu ta ñu répondre ko ñu daal di ma libérer si saa si tey jii lan ngay wax sénégalais yi nga xam ne am na ñu jàpp ci bind mi am na ñoo xam ne toog nañ ñaan am na ñoo xam ne taxaw nañ la lan ngay wax sénégalais yi. ah Pape sénégalais yi aw ma seen pay sama waxu démb rek mooy doon sama waxu tey. Euh, sénégalais yàgg naa dégg réewu teraanga la waaye xam naa ko tey ndax man sénégalais yi teral nañ ma ci côté yépp nag. Euh, Pape aw ma seen pay aw ma lu dul di leen remercier di leen gërëm di leen sant di ñaan aussi euh, xam naa di ci profité waale rek pour ñu xam ne. adduna bi euh, li ñuy xeex ñun toujours démocratie rek moo wóor maanaam réew mu ne dañu war a am indépendance euh, de justice parce que boo xoolee tey li am ni Amérique bu gënaloon nguuru Sénégal gi tey man maa ngi Sénégal di di ñoom ñu ngi may caxat caxate waaye nag yàlla ba bàyyiwu leen ci seen sago te sénégalais yi aussi bàyyiwuñu leen donc bépp sénégalais ak fu mu mën a ne muy borom kurus ak muy borom ñaan muy sénégalais lamda bi. muy sénégalais bi nga xam ne sax toog na ba xalaat Ousmane kara sax ci xelam vraiment ñu ngi remercier ñëpp Pape jaarale ko ci sa loxo parce que yow mii tey aussi ci sénégalais yooyu nga bokk da nga bàyyi lépp li ngay def Pape nga jël sa billet d'avion ne lii moom amoon na waaye du amaat nga ñëw Amérique euh, taxaw fi benn taxaw bu exceptionnel te ñu ngi ñaan yàlla aussi nag. ci célébration yi bu bu mu bu mu fee bu mu doon sa ginnaaw ñu ngi ñaan yàlla xëy na incha allahu ya xamuñu nu muy demee nag ndax madame dina la may temps bi waaye ñu ngi ñaan yàlla bu fekkee possible na nga ñëw fekkee lii nga xam ne moom la ñuy euh, dajaloo fii parce que fas na ñu yéene dajaloo ak sénégalais yi waxtaan incha allahu rabbi Ousmane Tounkara maa ngi lay sant di la gërëm di wax ne la ñu bàyyi la ak sa njaboot xam naa waroon nga leen nam ah en tout cas Pape euh, vraiment comme ni ma leen ko rek sa man Sénégal yëpp laa njabootee Mm-hmm. waaye rawatina ñi nga xam ne vraiment souffrir nañu sama ginnaaw façon souffrance bu ne. Euh, vraiment waaw maa ngi daal di passé benn temps ak ñoom incha allahu rabbi ba fan yii di ñëw bu soobee yàlla ñu gën a waxtaanee ay mbir jërëjëf. jërëjëf Ousmane.